jëre nga jëf mbokk téléspectateurs yi ñuy topp ci 3W Thiès Prestige ak suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan seen télévision régionale mbokk yi amaat nañ mbégte ak contentement tey nag euh, comme ni leen di toppal ci wàllu actualité li xew ci biir réew mi tey ñu ngi fii ci capitale du Sénégal muy Ndakaaru Jal Diop fekk si fi kenn koo xam ne nag kenn la ci Sénégal ku am taxawaay ci diine ji ku am taxawaay ci biir réew mi lu muy loolu dinañ ci dellu si léegi xam ngeen ne jamono yi ñu génn nag am na loo xamante ne xew xool woon bi ci biir réew mi waaye laal wàllu daara muy waa jooju di wuyoo sëñ Xaadim Mbàkke ñu baal ma ci kàddu gi sax ni ma ko mën a waxe nekk sëriñ daara boo xam mu ngi woon foofu Touba Kër Góor ñu tuumaal ko ni dafa sàkk woon ñaar fukki xale ak juróom-ñaar ca daara jëm doon jàngale bi coow li nag jugee dafa daw kenn xamul fu mu dem jamono ji ne yéen a ngi dégg ñu ne arrêté nañ ko jàpp nañ ko nii jàpp nañ ko ne moo waral nag ñu sol suñu daal ñëw fii fekk si maam Maxtaar Gueye nga xam dafa nekkal ONG islamique Jamra toog ni ñu war a sëq moom ndax mbir mi dafa dal ci wàll wi nga xam moom la ni sàmm sàmm jikko yi te loolu dafa daal jikko carrément kon fu mu jaar ñu sëq ak moom waxtaan ndax du ñàkk sax am na jéego yoo xam yëkkati woon na ko ci fu mbir mi toll ñu xam ko maam Maxtaar ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf suma kal bi ndax euh, yéex naa seetlu ne ab sekkeen la. jërëjëf moo tax sànq bi mu xawee tardé ba ne ah. mbaa du boolu ceebu jën dañ ko tegal moo xaw a.

di sóoraale ci nuyoo bi nag mbooleem followers yeeg téléspectateur u Thiès Prestige te di am yaakaar ne simili yi ñu fas yéene seq laaj ak tontu dinañ si jariñu ñun ñi ci plateau bi kazalika mbooleem téléspectateur yi incha allah ak nuyoo bi am na solo ñu door waxtaan bi rek ci wàllu actualité mooy li nga xam ni Sénégal gépp wërlal këpp muy kilifa diine kilifa aada yi ba ci ñi ŋànk wàllu réew mi sax am na lu leen metti muy sëñ Xaadim Mbàkke noonu las la ko mën a waxee ndax loolu moo deewu turam euh, nekk fële ci Touba Kër Goor ñu joxoon ko ay tout tànk pour mu jaf leen def ci ñoom alxuraan ngir mu defar seen avenir ñu doon ëllëg koo xam mën nañoo jiite daara yi mën a jiite jumaa yi waaye kazalika gis nga lem ca xew ñu ni de tuumaal ko te sàkku ñaar fukki xale ak juróom-ñaar loolu ana ba nga ko yëgee bu ngeen ko yëgee taxawaay bi la woon. waaw jërëjëf Daour boo gisee Jamra mhm. ci ñi nga xam ne ñu ngi faral di topp suñu ay yëngu-yëngu Eh, bu ma yeboo ne sax ñàkk yërmande gi Jamra di wone ci ñi askanoo ci daara te di def na ko dul noonu boo gisee suñu taxawaay tar ci noonu parce que mooy lu tubaab di wax naan mooy ñi nga xam ne si ñoom la ñu séntu bon exemple ñoom ñoo waroon nekk ay royukaay muy sëriñu daara yi maître coranique yi ustaas yi mm-hmm. waaye yow non seulement nekkoo royukaay waaye ngay mbon loolu waral nag kaa yu mel noonu Jamra du ci am benn masla dañuy xataraayu songal. Mhm. ak këru diine boo mën a askanu. Mhm. moo tax nag tontu la itam ci ñi nga xam ne bi coow Touba Ndamatu bi jibee mhm. ñaar fukki xale ak juróom-ñaar dégg naa sax yokku yokku na. Euh, ñi naan ana Jamra ma bëgg leen wax ne fàtte xaju fi Jamra kaabu mel nii. jokkoon na fi jàmmaarloo ak moom mu ngi fekkoon na rahmatullah alayhi sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke mu am benn sëriñu daara bu def njombe lu rëy foofa ca euh, commune u ci diwaanu euh, diwaanu kii la nu mu tuddati Daara Jolof juróom benni xale yu jigéen mu def leen lu mel nii mu bari nag ñu am ay wax yu ñuy jibal naan daal yëg nañu ne jege ñaale sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke la ma ne ko nag bu nekkee jege ñaale ngeen ji mbindeef lu bon lii muy def mënul wax a wax ba mu jaadu mhm. ñu daal di def délégation jël les devant ndax xam nañu di wax jooju jibee lañ ci nar ndax bëggoon nañ jaar foofu rek mbubboo sëriñ bi rek mhm. mëpp mëppal fexe ba suul affaire bi moo tax ñun ñu def délégation imam Massamba Diop maa ngi koy remercier ndax moo jiite woon délégation bi mhm. ba ñu demee sëriñ Mbay Diouf bokk ci assistant wu sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moo ñu yombalal woon suñu jàkkaarloo ak xalif général bi mhm. bi ñu xalif général bi dalalee imam Massamba ne ko daal suñu tànku tey tànku teggin la ak tànku feddali kóllëre tànku yeesalaat suñu taalibe waaye tamit tànku indil la suñuy njaxare ci coow li nga xam ne dalaat na ci kaw pénc mi mu di benn sëriñu daara bu def jombe lu rëy fële ca daara jolof juróom benn xale mu tëdde leen oh. ñu ngi jéggalu ci kàddu gi mm-hmm. ndax kilifa nga waaye il faut ñu wax la ko ci anam bu leer ñu ne ko nag dañu yëg ne waaye daal imaam Massamba eggaliwul sax sëñ Mamadou Lamine Baara dog ko ne ko imam masamba mu ne ko naam mu ne Jamra ñu ne ko nam na seen xel dal ba mbir mi jóbee jibee ba toq sama nopp bii mu ne laajal sëñ Mbay Juuf ci sama jawri ñi la bokk ci sama loxo ni jori man ni maa ne na ngeen jël matuwaay yep pour que mbir mi ñu topp ko ci yoon ba mu sës imaam ne ko alhamdulilah mu nekkoon kay jeex na ndax man du ma nangu ku ma mbuboo du ma nangu kuy mbuboo yoonu murit di mbuboo euh, askanu umma islamique bi di topp sa bakken di defi njombe ba pare jàpp ne mën nga ci génne noonu waaw ñu ne ko day suñu xel dal na parce que suñu avocat maître Khassim Touré Mam doomu kër gi la euh, taalibe si Amadou Bamba la ñun rek la doon xaar waaye xelal ne comme que waa ji mu ngi bàkkoo ne ci keppaaru sëñ Mouhamadou Lamine Bara la bokk xelal ne ci yow ci kaw teggin comme fi bunti bi nañ njëkk a jaar ci ci yow mu ne na seen xel tom mm-hmm. ñi ci war dox ñu ngi dox leen itam leen ci def itam baax mu ne parce que ñu dañ leen soto nasaxal leen néewal loo leen doole. ndax gàcce lañ ci umma islamique bi loolu 2009 la woon pour ñuy wax naan Jamra affaire rangu rek la sawar affaire Cheikh Ahmed Cissé ak affaire jigéen yi nekk ci Syrie yi di futti seen dënn di wane seen yu wend ah di tooñ xam naa tooñ rek ngeen ci jublu mhm. waaye chaque fois bu amee sëriñu daara bu def njombe kenn du dégg dam Jamra kon nag benn kàngo mhm. dama ci jël li ci gën a fës rek mais bari na mhm. ñaareel bi nga xam ne tam ci cas yu récent yi la bokk 2020 la ñu ngi fii ci Yoff cité Djily Mbaye soriwul fii la woon ci commune Wakam kooku tam benn sëriñu daara ay père de famille mère de famille doyloo ko wóolu ko dénk ko seen doom séntu ci ñoom mu ubbi seen dënn jëmbat ci imaan ak tawxiid séntu ci moom mu def ci xale yi xam-xam ak jikko yu baax mm-hmm. mu xëy rek def safaan ba totalement ndekete moom ni kaaw euh, sëriñu daara bu euh, euh, ndamatu bi yéexee feeñ moom tamit noonu la toog nañu ak diir parce que kaaw ndamatu bi sax dégg naa caay-caayam gi mu ngi ko tàmbali depuis jamono Covid ba. avant deux mille vingt et mhm. kii tamit ndekete ab diir mu ngi sëgg ci kaw xale yi rek daf ci boole nag feem bu bon maanaam des ci dugal affaire fétichisme mhm. xale yi nga xam ne xaw nañu dëgër. ku mu ci jaarale ci yu bonam yooyu ba fexe ba am lu mu jël ci yow ci wàllu maniw am na daa daawu alxuraan bu mu koy booleel am xaatim yu muy xaatim jox la ko pour nga naan masalan xëy na pour bañ nga wax walla nga boole ko kon nag ba yàlla bi nga xam ne dara teewul éclaté loo scandale bi parce que kenn ci xale yi rek moo dem ba xol bi toj xol bi jeex wax ko mu dem wax ko ay wayjuram wayjur yi commencé ñoom itam di téléphonante seen biir ñoom ñu daje daal di réunion mhm. ba ñu ko compté daal war na mat fukk ak juróom ak lu top ci ay xale yu mu doon def loolu mhm. alors euh, comme que sama ay mbokku lañu lébu lañu mu am kenn ci victime yi bàyyi bi dama ko xam suñu coloré la nee ma lu ci jam la xam ma ne daal na ngeen gaaw déposer plainte parce que dégg naa ne waa ji yónni na ay jege ñaalem pour ñu gis leen yéen way jur yi euh, dugal affaire arrangement dugal affaire mëpp mëppal bu leen ko nangu ñu daal di déposer plainte bi fële euh, euh, bri ma boole leen ak commandant de brigade bi bi nekk foire mu dalal leen ñu daal di déposé plainte bi yëf yi nag tàggatémbe ndekete waa ji defaat na yeneen pexe am ay kilifa yu mu yónni te man kilifa yooyu sax laa mere ndax ñoom ñoo waroon nekk en première ligne de sa combat ci jëf ju ñaaw ji waa ji def tey gàkkal malaanu islam waaye ñu jóg di ko mu mel ni ku leen di yónni ñi di ko doxal ay course pour mëpp mëppal affaire bi. kilifa yi ay kilifa yi maanaam diine wala kilifa administration. Euh, non ay kilifa ci wàllu ci wàllu xam nga foofu village traditionnel la. Mm-hmm. donc euh, dañuy cosaanu. Mm-hmm. dañu dañu am euh, kilifteef boo xam ne ci wàllu aada la ak mm-hmm. kilifteef ci wàllu diine. d'accord alors kon nag ba ma ko yëgee ci laa ko ni waxal ma way juru xale yi Jamra jël na ay matuwaayam même boo leen déposé wul plainte lii may wax ci rajo laa koy waxee parce que si euh, RFM laa ko doon waxee ma ne suñu avocat maître Hassim Touré mu ngi may dégg même boo leen déposé wul mm-hmm. moo xam ci arrangement wala ci guerre wala lu mën a doon maître Khassim Touré nee na ma yoon may nañu ñun en tant que organisation euh, euh, euh ONG islamique Jamra mhm. yone may nañu ñu def lolu tubab di wax ci walu yone constitution partie civile manam même dul yow lañ togn directement waye togn nañ ko xamné ne yaak moma a bokk penc mi te xeyna muy ab néew ji doole wala xeyna ay pexe matalewul pour mu mën éggé togn biñ ko togn ci loxoy yone alors yone may nañu ñu ñew ci wétam ut awoka daal di jaarale mbir mi fa mu war a jaar ma ne kon na waxal ma ñoo ñooñu loolu bu ñu toppee waa ji ba teg seen plainte suuf Jamra dana déposer plainte alors ba loolu siiwee nag mu jox fitti yeneen parent wu victime yi nga xam ne ñu ngi toogoon rek xaw a ragal ñoom itam ñu daal di fas seen fit déposé plainte ba plainte yi bare nag procureur jox ndigal ñu teg ko loxo yóbbu ko 2020 la woon ba fii ma yow atteeguñ ko parce que viol dañ ko criminaliser ndax yalla dafa dogal ñun euh ci walu woowu lepp luy toroxal jigen di néewal doole euh du jamna rek mo ci nekk di ci yëngatu dañu am ay partenaires. Mm-hmm. ma ngi gëreum ñoom it na Ndeye Ami Sakho bu AJS. Mm-hmm. association des juristes sénégalaises di gëreum ñoom fat ki ne Camara ci yenn mouvement féministe ndax bi viol yi bare. boole kaag mettital ndax xam nga dangay gis jigéen dégg nga boo xam ne saay-saay saay-saaye na ko mhm. daan yi dafa ñàkkoon fayda ba da ci gis kuñ ci jàpp ak preuve yeeg yëpp ah, certificat médical et tout nga xam ne werante amul mhm. bu demee ñu àtte ko condamné ko balaa ñetti weer ñu gis ko muy tàmbambaalu ci medd mi mhm. mel ni kuy kokkali ay victimes alors yooyu yëpp la seet nag moo tax ñu ne li fi ni suñu borom dimbale woon dem si yàlla si Abdou Latif Guèye ba ñu criminaliser mbirum Sinébar bii tamit il faut ñu criminaliser ko yokk daan yi waaye nag gaawul woon noonu def nañu ay sitting yu dul jeex depuis deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille et cetera ba am na sitting bu ñu mujjee def fii si euh, place euh, de la nation euh, dañu taafantaloo woon viol wala boog tentative de viol bu ñaaw bi soxna Binta Camara nekkoon victime. fii ci Tambacounda. Mhm. xale boo xam ne amul sax euh, ñaar fukki at ak juróom waaye euh, euh, dontele waa ji ëpp moo ko ëpp doole waaye jàmbaaru jigéen la xeex naa ak moom xeex ba ñàkk ci bakkanam te waa ji mujjul am la mu bëgg mhm. loolu nag moo ñu gën a merloo mhm. ñu dem place Obélisque ànd ak suñu jigéen ñooñu ma lay wax def sitting alors Macky Sall a jot mémorandum recevoir délégation euh ñi doon ñaxtu ñaxtu boobu ne pour mu gaaw bu que ko jox député parce que député fay déposer euh, projet proposition de loi après le wara jaar bureau assemblée après la commission des lois et cetera mu ne état jël en charge comme ça le président Macky Sall en tant que chef de l'État, je damay def lu projet de loi gouvernementale Namoko mu non le noonu la ko fait dafa fait si assemblée rek euh, janvier 2020 opposition majorité voté ko kon nag violeurs yi na ngeen xam ne viol dootul ay ay trois mois quatre mois te y'a quand nga doomu jàmbur ba pare léegi dañuy jàpp ne rey nga nit loolu est criminalisé d'accord loi bi tout ngi la loi 2020 05 du 10 mm. janvier 2020

ñaari kay yi ma la citeel sànq. bi amone 2009 ak 2020. yow seen nañu sen taxaway tamit rafet na ci. biñ bëgg xam kay sénégalais li leen gëna ñor. moy bi nga xam ne moy moy moy mooy bees. mooy bees waaw eh, ana ban taxaway gën ci am. voilà euh, bi nak ba mu diké man d'abord euh, waxna ci sama publication ñi ngi delloo njukkal. Thiès Prestige. Mhm. parce que bu waxal yalla rek tax. Mhm. wax deug yalla Jamra ci yeen lañ ko yégué waaw kon euh, xabaar bi mhm. reportage bi ngeen ci def muy reportage boo xam ne dafa professionnel mhm. ba pare yiw parce que gis naa ni ngeen filmer xale yi ginnaaw mhm. kon suturaal ngeen leen parce que euh, noon ngeen ñëw ne fàng seen i kanam te ñoom ay tout tànk lañu ay jigéen lañu dañu war a am avenir ëllëg war a euh, bu leen bu yàlla may bu leen yàlla may gudd fan war a am seen njaboot donc ba Jamra gisee loolu immédiatement ci la ñu wootee lu wax euh, réunion bureau exécutif. d'accord parce que ñaari dañ koy faral di def chaque àjjuma balaa ñuy dem xadara juma. Mhm. Euh, daa di ni président Macky Sall di def conseil des ministres chaque àllarba ñun chaque àjjuma dañuy def réunion bureau exécutif pour xool tolluwaayu réew mi ci semaine bi jeex. ak yan taxawaay lañ ci waram alors premier point ordre du jour mooy affaire sëriñu daara boobu parce que li tax bëgguma turam. Mhm. tuddama turam. Mhm. dafa dañ ko jox turu ku yiw di di di Cheikhul Khadim moo tax waa ji tudd Serigne Khadim Mbacke tur wu yiw boo xam ne ñu ngi ko jox ku say-say waaw moo tax su may wax ci moom damay naan sëriñu daara bu ndamatu bi rek pour bañ ko dara daaleel tur bu rafet boobu di sëriñ Khadim Bousso sëriñ Khadim Mbacke eh, eh, ba mu des lii alors bañ ci réunion mhm. ñu nekkoon lañuy ñuy jëkk def nañu xool euh, police Ndamatou ak yoon ndax am na luñ ci jot a def alors bi ma renseigné woo ci suñuy avocat yi nga xam ne bés bu ne ñu ngi xëy tribunal xam nañu actualité faits divers yi ñu ne ma daal gisaguñ fi dara gisaguñ fi benn plainte ginnaaw gi ba ma la toppaatee suivre la nga am reportage beneen boo defaat mu am kenn ci père de famille yi ak mère de famille victime yi ku wax ne man sama plant pare na non seulement sama plainte pare na waaye kër googu mu dëkk moom sëriñ bi te jàkkaarloog ñun dootu fa dugg mu tànk li jaaroon ñu ko ci yoon ma ne haa ah, li mooy fayda ñu ne tekk di déglu rek alors toog ba yàgg nag ñu ne plant yi jébbal euh, victime yi seeni parent jébbal nañ ko yoon mhm. jébbal nañ ko yoon ñuy félicité bu baax commissaire u Ndamati di commissaire Thiombal taxawu na victime yi ndax euh, def na ci taxawaay bi war gendarmerie ba tamit def nañ ci taxawaay bu war ba procureur jot ci procureur tamit vraiment gàcce ngaalama baral na loxoom te loolu rek lañ doon déglu def na kayit googu ñuy wax soit transmis soit transmis boo ko déggee mooy commissariat ak gendarmerie amuñu sañ-sañu dëgg ñoom ñoo fi ne euh, pour que bu mbir ne këtt ne jon ñu jóg jël matuwaay moo xam ku sàcc la wala ku dóor nit gaañ ko jël matuwaay arrêté ko téye ko waaye fa la seen euh, man-man yem alors pour de question yóbbu ko nag traduire ko en ñoom ndigal la ñuy déglu alors ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne procureur ndigal ga teel na wàcc mu jébbal ñooñu kilifa yooyu soit transmis waaye soit transmis nag day am ndigal lu muy àndal waaw en quelque sorte loolu mooy man procureur joxe naa ndigal ndigalu lan nee na arrestation et enquête te commissaire Thiombane matal na ko jàpp na ko interrogé nañ ko ba ñu paree ba kayit ga dem tribunal tribunal waat na ndigal ne leen yónnee leen ma ko pour mën a jàkkaarloog procureur yónnee nañ ko procureur procureur dóor na ko man de dépôt voilà kon nag léegi taxul Jamra bàyyi parce que Sénégal dafa bari ay tapalé bari ay arrangement bari ay dugu. dugg parce que euh, euh, li tax ñu ne mbir mi dañu wara continuer di teg beut dossier bobu dossier ndamatu bi c'est parce que ñun yëgoon nañu né ba waji gisé né famille yi seen xol jeexna amna ñu wax bay joy dafa jëkk a né ne daf koy arranger alam l'amiable foofu la Jamra defee déclaration ba ñu defoon ci sëriñu daara bu foo bu wakkaam bi mais même booleen leen defee arrangement à l'amiable Jamra dana porter plainte saisir brigade des mœurs ak procureur mhm. ñu jëkkati ne waa ji changé na stratégie au lieu arrangement à l'amiable nee na mu ngi lijjanti visa te pour gëlëmal nit ñi au lieu mu dem ambassade de France bi nekk Sénégal mhm. nee na day dem Gambie lijjanti visa foofu

soit transmis pour arrestation et enquête ni suñ nañ neutraliser ko. muy lu leer euh, pour ñu wax ah, légui nak lima ci bëgg doli mhm. way mettre ci sen disposition suñu avocat maître Moussa Sar do leen fay dara ñun ñoy gaddu parce que yek nañu ne li victimes yi seen ay neew

te maa ngi gis sa dernier reportage xale bu boo xam ne ndeysaan bi expliquer mhm. yu bon yi ko waa ji doon def dëgg la mhm. te bu xale bi bañee mu mu tëkku ko mhm. ne ko xaw ma lan ak lan ak lan ba ba tëkku bi sax daf ci sóoraale sa waxi baatin voilà ak am am na tam lu mu lu mu togg lu melni ruy wala lu melni ni lu mu len jox ñu di naan. wa aco sama bëgg ñu dugg fa rek. ndax ah. loolu leer na. Ah. taxaway jamra bobu tamit am na solo torop hmm. mais lima for ci wayu beuy te nit ñi à chaque fois ñu makay wax may dégg sama nopp moy ko ni sekk fexé nan ba japp suñu khadim hmm. Sénégal nak dafa baxo ben mbir bo bokké ci askan wala sa loxo jot sa digg ginaaw mbir mi man nan la japp Sénégal gep japp nan la ñu dawal ay bëss ay na yewen tuuti rek. ci di jënt ñu génn la ndànk euh, génn la bitim réew ndax yooyu tamit am ngeen ci taxawaay. waaw looloo tax ba wax la ne mm-hmm. sànq. Mm-hmm. bu ñu nee yoon teg na ko loxo. procureur def na bataaxal bu am solo boobu ñuy sans soit transmis pour arrestation enquête. Mm-hmm. entendre na ko. deferee na ko au parquet. caabi féete na ginnaaw ñu defee ne jeex na ku nekk war a dem déedéet. xeex baa ngi doog a commencé. parce que fii la tappalekat yi di dugg si na. fii la mafia yi di dugg si ñi nga xam ne dañuy gis nit ku tooñ mbir mu ne këtt ne jonn ñu jóg di si loolu dàmbooj di wax di di di di di layam-layam yi <laughs> pour seet ni ñuy mën a indee porox ndol la ndax waa ji ci mm-hmm. ñi nekk ci pexe yooyu na ngeen xam ne foo leen ci tollu Jamra yëg na ko parce que ñun dañuy am nañ su ñuy ndaw mm-hmm. suñuy avocat yoo xam ne ñu ngi ñuy renseigner tribunal dossier yi fay ñëw mm-hmm. moo tax nag li ma ci doon bëgg a dolli ginnaaw bu ñu gërëmee taxawaayu commissaire bi Thiombane ak procureur li ma ci doon bëggoon dolli euh, ñaari sëriñ daar yi ma la wax yëpp si pexe yii lañu nekkoon kenn ki 2009 ba léegi caabi mu ngi ko féete ginnaaw te ba tey Jamra ngi suivre dossier bi kenn ki 2020 mooy ci nekk Wakaam mu ngi prison te ba léegi Jamra ngi suivre dossier bi mm. kon kii tamit incha allah. dina bok ci dossier ñi may bët alors ñun ñi ñi am ñewante ci ñom moy victime yi moo lima ci doon bëgg doli moy li ñi ñaan état bi ñu jema def ni réew occidentaux yi di def bu amé ay tout tank yo xamné ne dañ leen say say moy ginnaw enquête beeg yoy yep ba tek loxo waaji xalé yi jamra ngi ñaan état du Sénégal parce que ay ji doole lañu mu defal leen un suivi médical boole leen ak benn psychologue boo xam ne da leen dana leen defal lu way kër docteur yi tuddee psychothérapie ndax xale yi à part yu bon yi leen waa ji def def na leen choc ñi di ko wax traumatisme psychologique loolu foog ñu génne ko ci seen xol ak seen xel parce que bu génnul day reste ci ñoom day nekk ci seen xel nekk ci seen xol fu ñu gor góor tiit defe ne góor yëpp bon góor yépp soxor ba ñun amna ci ay kaw jigen yo xamné nangotu ñu am jëkkeur dem nañ ba mag am fukki at ak juroom ñaar fukki at ak juróom fanweeri at am am na ñeneen natt bu bon dal leen dañu mujjé nekk ay lesbienne lesbienne moy góor jigen bu jigen jigen buy dem di teud ak jigen parce que sen xel ak sen xol nangotul góor lolu mo len ko tek parce que après viol bi amul un suivi psychologique. kon ngi établi par l'intermédiaire poste de santé bi ne recensé nañu recenser xalé yi nga xamné natou bobu tek na seen kaw. état bi psychologue séances dina séances de psychothérapie xel ñu dellu amaat seen équilibre bu ëllëgee bu leen yàlla mayee ba ñu toll ci am borom kër ñu mën a dugg ci mbirum sëy sans problème mm. lu ko may ay la leen dikkal di nelaw di tiit guddi ak di waxtu ak dem ba yàgg euh, war a toll ci am borom kër ku ñëw nga dàq ko defe ne góor ñëpp a mel noonu mm-hmm. fekk dafa des ci seen xol mm-hmm. alors loolu daal lay ñaan état moom la yàlla dogal muy vice-président de la fédération nationale de 16 800 écoles coraniques yi que ci Sénégal le Côte Nous ñu ngi que di sargal une mhm. fédération bi ci taxawaay bi ngeen taxaw ba état bi boole projet de modernisation des daara Ce mhm. xew ndamatu nag tax c'est que mu ngi un depuis toj toj ba amone fele ci gulom ci diwanu dara Jolof te serigne dara bi ak ñak jomam <laughs> bëgg di taafantaloo jege ñaale yooyu yaay bu mu wax ne mom la jege serigne Mahamadou Lamine bara bobu lañ jokkon wax sàkkuteef bi yow maktar sek euh, Adama waxtan no na ci ak yow ndax si kilifaw federation des associations des écoles coréennes ci nga bok li xew nak jot na ngeen wat wala bok ngeen fulal Euh, jàmbatu Jamra bi mu lan na ngeen commencé di imposer enquête de moralité xam nga fi ne ministre de l'intérieur kufa fa dem ne da nga bëgg créer ONG wala association wala ASC association sportive et culturelle dañ lay defal enquête de moralité xool yaay kan xool sa casier judiciaire ndax amolo euh, si sa ginnaw ben passé bo xam euh def nga ay njombe ci wàllu ñàkk yàkkataan xale ndax amuloo un passé euh, ci euh, comportement boo xam ne ci wàllu violence la et cetera et cetera bari na critères yi ñuy sukkandiku ba ba nga set wicc ñu doog la jox sa këyit ne mën nga taxawal sa ONG wala mën nga taxawal sa association sportive culturelle ñu ngi ñaan association maître coranique yi ngeen indi lu mel noonu ci seen kuréel bi bàyyi leen ku jow ñëw ne ustaasu daara laa sëriñu daara laa ngeen bàyyi ko mu ñu ay per de famille ay mère de famille dénk ko seeni doom ak dénk ko seeni i njaboot ndekete ab saay-saay la pédophile la violeur la mu mbubboo mantow sëriñu daara pour dafay caay-caayam te li tax mu dangereux xale dafa ragal bu ko amee mag boo xam ne dafa am autorité morale ci moom day naan tekk rek lu mu ko def la mu defe ne noonu la xoolal affaire ndàmbaatu bi rek depuis Covid bi 2021 ñu ngi ci 2023. Mhm. wajangi ngi ci kaw xalé yi. Mhm. xoolal affaire euh, wakam bi depuis 2 ans waajaa ngi woon ci kaw xalé yi. Mhm. yi dañuy faral di tit motax nak yeen serigne daara yeen leen mën a kon loolu moy sakutefu Jamra yombana da ngeen di jël contact avec le ministère de l'intérieur Antoine Job. yek na xew-xew bi waye tubab neena on peut pas être plus royaliste que le roi yéen yéen ko meuna sakku ci état né dañu bëgg dal daara yi ñu ginnaw recensé nañ leen ba xam ñaata la parce que recensement bi ma jot seize la ngeen set weer bu né gox sangam sëriñu daara yépp ngeen laaj leen seen casier judiciaire sëriñu daara bu am casier judiciaire bu tilim mëss nga fekk mëss nga am problème ci yu mel ni ngeen exclure ko dakh ko banir ko génné ko ci seen sinon dañ lay tilimal rek voilà kon sëñ euh, Daoud Seck mhm. dal mo moo euh, euh taxaw setlu bi jam la def mhm. ci mbirum ndamatu bi amna solo euh ak tamit euh, liñ ci si toftal mu état na len encadrer boole leen ak waay keur docteur ñu defal len ben séance de psychothérapie ndax traumatisme bi génn ci sen xol ak sen xol wàllu fédération association école coranique yi ñoom oustaz Adama Seck ñoom itam nañu commencé jóg nag di saytu mbiruñ sëriñ daara yi mm-hmm. eh, chaque mois eh, gox sàngam ngeen convoqué leen ku ne ngeen laaj ko casier judiciaire mm-hmm. waaw koo leen am ci moom dut ci casier judiciaire rek ngeen rajee ko génne ko ci parce que ñu gis nañu benn cas mm-hmm. bu amoon booru Cilmaxa kooku dafa newoon ci eh, toj-toj yi après tëj nañ ko ba génna na mais dafa génn duggaat ubbi daara. te daara jëla waaw waaw dafa dafa toxu daal demaat ci beneen gox xam naa gox boobu xëy na si duñu suivre actualité yëguñu woon ne waa ji moom Maxtaar nag loolu moo indi jafe-jafe loolu indi am ay ay ay dëkk yoo xam ne si ni waaw ruqeen na ruqe yoo xam ne information jàng tamit waaw bu fekkee kanu yaakaar ci ñoom mm. ñëw nañ def defal leen alxuraan mu indi jikkooy boppam tamit su boobaa mu ngeen ci man loolu mm-hmm. fédération bi rek moo ci mën dara parce que

def fi njombe loo xam ne bu ne këtt ne jon ñëpp a gis ko ngor ngor gërëmu ko diine gërëmu ko du dëgg du yoon kooku daal di toxu dem ci beneen diwaan ubbiwaat fa daara ngeen di ko seetaan mhm. kooku da ngeen ko war a rajjee génne ko ci affaire na dem jaayi matt na dem jaayi paañ na dem nekk électricien mason lu ko neex waaye kenn waratu koo dénk ay tout tànk yoo xam ne dafay yàq seen àdduna yàq seen lépp voilà kon nag. Euh, mu mel ni kon waxtu yu sax mat na. Mm-hmm. laaj bu mujj bi nga xam ne day concerné mbokk internet yi. muy jëf ju ne mel. Mm-hmm. yàgg na am ci réew mi. waaw waaye lim bi yaakaar naa ni. ñu ngi koy soog a dégg. ñii nag dañ cee laqatoo maanaam gannaaw jikko ji bon ji. ñu ne laqatoon nañ ci yeneen mbir yoo xam ne eh, borom xam-xam yi ñu yor daara te yor jikko ju ñaaw ndax am na am na yuñ ci laqatoo ngir wut mbooloo ngir wut alal loolu lañ ci mën a leeral. d'ailleurs sax yaa ngi may may bunt sax ma jubbanti ndax xel day fattu xam nga maa ngi doon sàkku ci oustaz Adama Seck di vice président fédération des associations des écoles coraniques mooy sàkkutif boobu ma wax léegi waaye tamit damay yëkkati kàddu jëmale ko ci oustaz maxtar Sarr bi nga xam ne ràññeeku na ci wàllu saytu mbirum aar daara d'ailleurs sax kuréelam bi mu ngi tudd aar daara Makhtar sar yàgg na Jamra ñu bok ay ay chantier ak combat chantier bi ci muju te yalla defal na ci ndam moy mouvement féministe yi fi bëggoon daganal avortement muy yaq bir mhm. kon Jamra ak le comité de défense des valeurs morales bu seigne Bassirou Mbacké Chastou Fall di jarbat seigne di seut ci mam Cheikh Ibra mhm. euh oustaz Makhtar sar di mhm. njitu aar daara ñoo àndoon mëne combat bo ba yalla defal na ci ndam euh, état bi defal nañu li ñu bëgg mooy bloqué na ko. waaw yàqu biir kenn du ko fi légaliser. kon nag Makhtar Sarr sàkkuteef bi ma wax léegi jëmale ko ci association maîtres coraniques yi bu ñoom Oustaz Adama Seck eh, c'est valable pour yow. yow am na loo ci mën a def. pour ñu recenser leen. képp koo xam ne mës nga am njombe boo def ngeen exclure ko parce que eh, njombe yi. Mm-hmm. xam nga léegi léegi lim bi dafa bari lii mooy li feeñ. mais ñun am nañu ay njort que am na ci des cas yoo xam ne dañ ko mëpp mëppal avec la complicité des parents te parents yi amel nañ seen i doom ak waaye gàcce ngaalama père ak mère de famille bu ndàmbatu ñoom dañuy jóg daa di déclaré xare badar la ñu déclaré. waaw yuuxu ca kaw. maa ngi gis waaja keroog. Mhm. bi ngay def reportage. Mhm. mu naan mhm. reporter bi ne waaw euh, moom day. dafa mel ni rek euh, sàkku nañu ay mu ne dafa ñëw rek këf micro bi bàyyil naan dafa mel ni waaw kon dafa mel ni leerul. Ablaye kaay fi wax. attestation ki yeeg dégg nga certificat médicaux yaa ngi nii. nga naan dafa mel ni ah. ah daal di xataraayu. ci laa ne lii lii bu ko parents yëpp defee. Mm. say-say yi dinañu dinañu dellu ginnaaw. dëgg lu ni fan kon nag léegi. Mm-hmm. nañu bàyyi mëpp mëppal bi. Mm-hmm. parents yi ku ci yëg que mbir am na. Mm-hmm. ak këru diine bu mu mën a doon. parce que ñoom dañuy taafantaloo ne Touba laa bokk Tivaouane laa bokk Ndiassane ak Thiénaba ak Niassène ndax ña sanc këru diine yooyu ñoom bay bàyyiwuñu fi li voilà kon këru diine bu mu mën a doon na ngeen lëkkaloo ak i kuréel yu mel nii Jamra yu mel ni Aar Daara ak association des écoles coraniques ñu jóg song ko nasaxal ko damm ay pexem néewal ko doole bu ko defee nag deru umma islamique bi set deru serigne daara isa ci tank bi sama laaj bi rek da melni ma maam dang da nga ko xaw a mm. maf ñaandu tuuri mm. muy que ni jëf yu ne mel ñukay def limbu ñu toll ñukay def ginaaw jikko jubon ñi neena ñu ci sentu alal ñi di ci sentu mbolo ndax lool mëna ah lool ah, junj naa la ko sang te suma yoron archive presse 2020 juin mm. xaw ma octobre 2020 ci njombe li amone fi ci Wakam dëggal na li nga wax parce que xalé bañ leen est-ce que dafa leen daan sàkku rek mu ne day boolewu ci woon du loolu rek dafa daan def boo amee lu génn ci ñun mu mu mu mu ci benn kopp après daf koy jël euh, jaxase ko ak daa yi ñuy bindee alxuraan ci àlluwa yi nee na am na leen lu mu ci def bind ko raxas àlluwa bi ndox bi mu jox ñu ko ñu naan wala ñu sangoo wala bokk moom mu jël ko utiliser ko pour leneen kooku fétichisme la mhm. affaireu xërëm la mhm. affaireu affaire euh, jahiliya euh, am na ci am na yeneen tam ñu ne euh, xale tout tànk bu mësul xam dara mm-hmm. nga jëkk ci moom boo jëlee lii ak lii ak laa donc loolu am na ci mm-hmm. wàllu question wut alal mm-hmm. question wut tur question wut mbooloo waaw dem leen ngeen wuti ko ca malay te bàyyi doomu jàmbur yi nga xam ne ay xale yu set lañu ndax xale moom wax dëgg yàlla xamul dara ngeen ñëw leen teg lu mel noonu loo tax nag ñun jàpp nañu ne daan bu leen état mënti teg lu muy tar tar tar xeeb nañ parce que ñooñu c'est des euh, ay noonu penc mi lañu. Mhm. dañ leen war a soril ci penc mi faj leen bu dee dañu feebar. Mhm. ci wàllu woowu parce que y a des pédophiles. Mhm. yoo xam ne seen i rab ci xale rek leen di xiir ñu faj leen ba ñu wér ñu doog a dellu ci penc mi. voilà kon nag euh, encore une fois jërëjëf waa Thiès Prestige. Eh, yàllaa ngi doog a dogal daan naa leen suivre nag waaye yàllaa ngi doog a dogal. ma am ak yéen. Eh, jataay bu yaatoo ni mm-hmm. eh, lii rek firnde la bu wane ni. Mm-hmm. ni Jamra ittewoo. Mm-hmm. di défendre suñuy valeur yéen tamit loolu it itteel na leen. te foofu lay tëjee parce que ñaare. ñii bëgg a ñëw naan dañuy bëgg a adhérer Jamra wala boog di ñu poser question luy taxawaayu Jamra. ma ne leen Jamra. wootewuñu diine. wootewuñu tarixa wootewuñu daayira Jamra du dara dul ay simple ndongol daara yu askanoo Touba Tiwaawoon Njaasaan Canaba Ñaseen Medina Baay Laayeen famille omarienne yu jàpp mag ñu baax ñi tëdd ci dëkku diine yooyu ku ci nekk ci ñoom bi ngay laata wuy ji sa borom barsax jëf nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi kon bu ñu nee ñooñu war nañ leen fay bor waxi taalibe bu xër la rek ndax ko xamne ne la genn ci yu jahiliya indi la ci leeru siratul mustaqim ko xamne ne la xamal xaala lahu yàlla na rasulullah yonent bi neena so jogon jógoon weer bu jot nga dajale sa salaire ka or ak conteneeru jama di ko ko jox addiyee du tax nga mën fay boru lahu khala rasulullah kon comme ko mënuñu leen fay bor lan mo fi ses delo len jukal <coughs> te lolu moy taxaway jamra naka lañ len di delo jukal. mooy ñi ma ko waxee sànq taalibe yi ñun njaboot gi ñu fi bàyyi. Mm. ku ne ak foo mënti askanoo ñu joxante loxo. Mm. séq ndono lu sell loolu fi mag ñi baax ñi bàyyi. pour aar ko. mbaa nga bëgg ci xëpp suuf. ak koo mën a doon lobby góor jigéen yi. Mm-hmm. lobby franc-maçon yi. lobby yiy làqatu ci ginnaaw producteur de série télé. Mm-hmm. di jàngal xale yi ay jikko yu bon. Mm-hmm. mel ni série boobu nga xam ne yàlla dimbali nañu xeex nañu ba procureur jox ñu dëgg arrêté nañ ko. ñi di ko wax réewu di ay 17 ans 18 ans. exprès. am comportement borom ñaari tour di jouer série di fond de teint. def ay pastel beut def rosa. ay faux ba di dami loxo da ngay li ko <laughs> kon mm. ak les faux sëriñu dara mm. ñooñu ñëpp ak lobby bu mm. nga bëgg suñu itte ñun Jamra ak tamit waaw Thiès Prestige parce que Thiès Prestige ñu ngi xeex pour valeur yi ñu ngi xeex pour ñu sàmm ndono la fi li fi wax ñi baax ñi bàyyi ak ñeneen ñu mel ni yéen mhm. ñu ànd joxante loxo euh, euh, jàmmarloo ak ñooñu yàqkat yooyu mhm. te mu jaral ñu lu ne góor jigéen moom wàññeeku ah waaye ñu ngay làqatu de ah. ñu ngay làqatu de bu metti sax mhm. xam nga ñoom euh, ñàkk jom weesuwul jàmbaarul islam bu mel ni sëñ Modou Lo nga ne yaa koy porter plainte góor jigéen ñi def nañ ko dal di ma porter plainte man déposer plainte contre seigne muntaha ci la defee conférence de presse bu tang bobu ma ne yéen dañoo plainte seigne muntaha waaw waaw yónni woon naa ko sëriñ euh, waaye du góor jigéenu Sénégal de ah d'accord c'est-à-dire li indi ciow li mhm. seigne euh, modlo Lo Ngabou mhm. euh, Je l'Islam bi jité safinatul aman mm-hmm. da fay def chaque fois bu Touba ben événement religieux mm-hmm. ziar Magal ak mm-hmm. un mois avant je and ak équipe am set setal moral fo xamné nañu ñu fay jaay cigarette ñu saisir alors 2020 ñu doon def ben tournée ñu yëgal leen né euh, quartier sangam appartement sangam ay borom ñaari tour ñoko ko loué. ñu dem fa rek jappalé war nañu ma 10 paqueté leen duggal ci auto genn leen Touba sanni leen ñoo dem nak def lettre yone ko seen badjen yu yu ya nek France <laughs> muy kurelu goor jigen bu mak bu ñuy wax ADEOS. ADEOS defar plainte. Mm. dal di plainte seigne Modou ngam naa la ko yónnee sax moo ko gisee sama sama répertoire. ba ñu ko planté. ba ñu planté sëñ Modou Lo Ngabou. Jamra daf ko yër def déclaration. daa di ne jàmbaarul islam bii. waaw nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba lay noyyee. nga xam ne euh, dëkk bii pour mu set. ci wàllu jikko ak ci wàllu euh, taxawaay. moo moo ko itteel. Mm-hmm. Jamra du nangu. Mm-hmm. kenn di ko ñàkkee teggin rawatina di ko jébbal plainte góor jigéen naka la góor jigéen yi dégg loolu dem ca seen bàjjunu góor ba daal di ne plainte sëñ Modou Lo nga bu boole ci ma Makhtar Gueye bu Jamra ñu daal di jël plainte bi nag déposé ko jox ko François Darmanin c'est le ministre de l'intérieur mm-hmm. ba pare siiwal communique bi nag ne yóbbu nañ plainte yi ministre de l'intérieur journaliste bi fees fidèle waaw loolu noo ko gisee ma ne xam nga nu ma ko mm-hmm. ma ne ko fii raaya bi président la république mën di jox nit ñi ay fête de l'indépendance yooyu nu mu tudda ñaan waaw kii xaw ma kii <coughs> ordre national du lion euh, xaw ma lan du mérite bu dee France légion d'honneur je ne sais pas ñoom ñoo xam ma ne ko dafa mel ni nga jël raaya yooyu yëpp dajale ko tappal ma ko mu ne ah ma ne ko waaw ma ne ko sëñ Modou Lo nga butam <coughs> affaire bi ree la ko def ndax ku góor jigéen dem ba di la porter plainte ça veut dire fi nga duut baaram foofu la dëgg la voilà kon nag mm-hmm. maa ngi doon tooñ sëñ Modou Lo Ngabou sax dama ko ne maa ngi nii ci eh, studio maxtar Sarr mm-hmm. ma ne ko ginnaaw bi ñu la masaloo ci eh, góor jigéen yi jóg naan dañ lay plant te dañ la xamul sax mm-hmm. eh, dañu bëggoon bu gàmmu gi passé mm-hmm. ñu ñëw seet si la ni nga def ba créer Safinatul Aman foofu si dëkk bu sell bi après ñu ñëw and ak yow ñu créer Safinatul Aman Tiwaawan Safinatul Aman Ndiassane Thiénaba ñassen muy reetaan eh Maxtaar loolu ëpp na di mana ne ko déedéet. ñoom mhm. bu len nexé ñu mhm. tuddé ko benen tur. Mhm. waye li nga créer Touba warna am ci yenen këru diiné parce que police mënu def lepp deug la té commissaire xamna wax. mom day liggéey en étroite collaboration ak Safinatul Aman. te señ señ Serigne neni euh, euh, euh nii. Euh, ndigalu señ muntaha bi mujj lan la. dafa ne bu kenn politique di Touba yéen Baye Fall yi jox la leen ndigal ngir ngeen fexe ba ñu jëfee loolu. war ma ñu pour ñu war ma ko waaw. Mhm. loolu la moo tax ñu dëgëral collaboration bi. Mhm. et commissaire Thiombane nanga joxante loxo bu baax ak organisation religieuse yi Safinatul Amaan et cetera. Mhm. ñun Jamra léegi la ma sama coordonnateur bi doon woo sax sëñ kër Mbuub moom moo ñu fa toogal. Euh, yóbbu naa ko ba ci sëñ Muntaxa nee ko sëñ Mbay Juuf di bokon ci bëkkaneeku Serigne Mouhamadou Lamine Bara dafa wacc liggéey waye Serigne Babacar Mbuub mi plaza. remplacer té te comme que yow serigne muntaha ya fi buntu bi dama bala ñuy dem installer cellule bi dina fi jaar sakku ci yow ñaan ak ndigal So ma demal ma dem bo ma ne taxawal ma taxaw mu ne taxaw lan ëpp naa def mhm. ma ko ci lan mu né da nga fatéré man sering muntaha ci Jamra labok. bok ndekete suñu jamarlo bañu amone amin en 1985 dañu séti ji won euh, xalif général des Mourides jamono boobu Serigne euh, Abdoul Ahad Mbacke moo toogoon. Mhm. ndeke fàttewu ci dara. ba ñu waxee ak Serigne euh, Abdoul Ahad ñu ngi lay yëgal procès bi franc-maçon yi dañ ñu porter plainte procès bi tel jour la. c'est une longue histoire xam naa beneen yoon dañ ci def émission bu yaatu. waaye Serigne Abdoul Ahad daf ñu ne. fekk sa fond saal ba am na ñu toogoon benn groupe bu toogoon ci benn benn moquette foofu mu ne leen gis ngeen ki si digg bi. Mhm. te lëmas kaala gu weex ci baat bi. sëñ Abdou Lahad nee ñu kooku mooy sëñ Mouhamadou sëñ sëriñ sëñ Mountakha Mbacké Bachir. moom laa leen booleel. foo leen toll ci combat bi contre franc-maçon yi bëgg faagaagal liggéey Cheikh Ahmadou Bamba xajamal liggéey Seydi Hadji Malick Sy Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass Seydina Limamou te yéen nii ngeen di def di jàmmarloog ñoom ñun la waroon kon foo leen ci toll rek boo leen ko waxee sëñ Mountakha balaa jant soo danaa fi ndekete sëñ Mountakha ba mu ma recevoir le 17 décembre ma di ko bëgg a nettali loolu ndekete moom fàtte ci jàpp na ko jërëjëf alors kon nag euh, euh, diine jàngo mm. ñun Jamra seeni soldaar lañu waaw euh, Thiès Prestige si soldaar yi la bokk léegi mm-hmm. ndax moom itam fu fu liggéeyu mag ñi mm-hmm. fu ñu menacé ne liggéeyu mag ñi dañ ko bëgg xajamal ñoom dañuy jóg waaw incha allah voilà bu ko defee nag na partenariat boobu continuer. incha ba bu ñu may saay-saay yi fenn fu ñu nakkee seen seen seen seen naka la ñu seen nakk. fu ñu yàqee seen nakk. jërëjëf ñu sellal dëkk bi. Uh-huh. bu ko defee mag ñu baax ñi la ñu fa liggéey. Hmm. di ba Maodo Baye Niass Baye Laye. Hmm. ñu mën a continuer di ko jariñoo alors kon nag yàlla na yàlla daxal réew mi seytaane amiin amiin amiin euh, suñu kilifa diine yi kilifa diine yëpp laa wax nag mm-hmm. ahlul sunna ahlul tasawuf mm-hmm. ahlul bayt mm-hmm. euh, ku ci nekk ci yéen la yàlla dénk ci sa ci mbooloo parce que yàlla mooy affecté waate ku ko neex ca ko ko neex ku ci nekk la yàlla dénk ci si mbooloo yàlla bu sa yaakaar tas ci yow kilifa diine yalla yalla ñor di sen fante dafto ci wer yalla yalla def jamm ci rew mi te làqal ñu senegal fu yaq yeggul wa assalamu alaykum wa rahmatullah jef mu nekkon suñu bàyyi mam Makhtar Gueye mu melni rek cant geureum gërëm na la ci dalal gi nga xam dalal nga ñuko ak euh, waxtaan nga sekk ak ñun hmm. tay sax bu ngeen gisee da nek waxtaan wax borom xam-xam la ba tax dañ ko baye gi rek ndax njariñ la mëna wax ci rew mi te la ci suñu xalaat nag wax nañ ko yéen tamit li ci seen xalaat ñu ngi koy xaar ci commentaire yi mu nekkoon émission boo xam dañoo def déplacement depuis Thiès ñëw nga dégg ko suñu micro mu xalaatam ci réew mi ak tolluwaay bi nga xam ne waa Touba Góor ñu ngi koy dund muy sëñ Xaadim Mbàkke mi nga xam ne moo juróom ñaar fukki xale ak juróom-ñaar ci jigéen def leen nekk sudul noonu Moussa Mbaye la ànd ak ci caméra bi ànd ak sama consultant aram ak ki nga xam ne mooy Birima Dawa Siñoto di leen jox dig daje fii ay bés ci yeneen programme ci réew mi muy xew-xew waaye yàlla na doon jàmm mbokki jërë ngeen jëf